mbokk yi dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko 24 heures yéenekaay mi ci école bi nga xamante ni jamono laa la wax pour yaa ngi bëgg a taxaw ndax grève yu metti yéenekaay bi ne waa CUSEMS jublu ci ay grève rawatina section bii nekk ci département bu Thiès démb démb rek ci talaata ji laa la wax débrayage la amal teg ci assemblée générale boo xamante ni mboolem yi enseignants yi nekk ci département bi teewee nañu ko yéenekaay école yi ak yeneen i enseignant ak i élèves sax yoo xam ne jamono ji ñoom ci biir kaso bi Ibrahima Kumba Sarr bokk ci enseignant yi di xam ne ci biir yéenekaay bi ne ni du ko neex teg ci def benn marche boo yi nekk xam ne jamono ji ci salle de classe yi la leen waroon fekk yéenekaay dong nag la seeni enseignant nekk ci kaso bi ndax ci Rufisque tam bëri bëri na ci enseignant yoo xam ne jamono ji ñu ca biir kaso ba ba seeni moroom di génn tey ci Yëmbal ñoom enseignant yi nag fi nii laa la wax bëgg may dara état bu Sénégal li ñuy sàkku di seen moroom enseignant yi dellusiwaat ci biir classe yi Walf Quotidien beneen problème kay bu nekk ci biir réew mi mu di problème courant bi ba ci gasoil bi fi toll nii laa la wax mu ngi bëgg rey doomi aadama yi yéenekaay bi ne booy xool ba xool li waral lépp mu di subvention bi état bu doon def jamono ji def ko wàññi jële ko ci 550 indi ko ci 215 jafe-jafe yi ñuy dund nii yépp lii moo ko waral fi toll nii nag kenn noo ndax énergie bi nga xamante ni dafa jafe lool boole ci courant bi nga xamal ci compteur yi jafe-jafe yi nga xam ne moom la Ousmane Sonko nekkee gannaaw ba mu nekkee en réanimation Khalifa Sall nag réagir na la moo ko gënal sax bakkanam lii war na tax état bu Sénégal daal di réagir yéenekaay bi ne xam ne moo nekk ca biir kaso ba lii moo tax démb ñu daat koy yóbbu ca commissariat bu Grand Yoff waaye moom Falla Fleur dafa mujjee am malaise ci saasi lañ ko mujjee yóbbu ca hôpital Idrissa sëpp yi ca wet ga yéenekaay bi duñu xamal ne état bu Sénégal de mujjee naa recevoir at benn financement bu toll ci 169 milliards ko ci FMI balaay at mi di jeex ñu jot financement bi ni mel bés bi le jour des ci Ousmane Sonko mi nga xam ne saa yu du xëyee rek situation bi di compliqué yéenekaay bi ne jamono ji ñuy wax neexul a gis ndax wér gu yaramam dafa tagga témbee te ñu ngi sàkku ci état bu Sénégal nag mu réagir balaa muy trop tard ba ci kilifa diine yii ñu wax ci situation Ousmane Sonko bi balaa muy wees jot na nag fi mu nii ñu wax ci source a moom des ci dossier Ousmane Sonko bi digganteem ak Mame Mbaye bi de gis nga boobu moytuwul nag ñu daal di nag audience bi waroon a am ca Cour suprême jàppoon nañ ko le octobre bi waaye ba léegi si laa wax ministère public déposé mémoire de défense lii nag moo nar a tardel audience

Ndiaye moom def révélation bu rëy ci gaal gi nga xam ne moo jóge koo woon Kayaar départ te kenn gisu ko depuis fukki fan ak juróom-ñaar gaal ga nag naa teere ji ci duwaanu Dakhla nekkee ci duwaanu Maroc te ci biir gaal gi téeméeri doomi aadama ñoo ci nekkoon nag ñi na beneen gaal gu ñu jàpp tamit mu ngi jóge ko woon ci duwaanu Kafountine juróom benn fukki doomi aadama ak benn ñoo ca nekkoon ñeent ñi nag ba ñu yegsee leen yóbbu ca hôpital ba baabu seen moom benn seetlu dong la def moo di jigéen ñi xale yi tuuti yii ah bari nañu léegi ci ñiy dem dem barsaak barsaak lan moo waral li ni mel nag lii moo jar a laajte <laughs> du ma ci débat yàlla baax na ñu yéen ak jàmm mbokk yi ba suba ak jàmm incha allah